Eh, tey jii muy émission bi nga xamante ne moom mooy tëj daanaka semaine gile comme ni ma leen waxee dorénavant vous aurez votre émission tous les jours du lundi au vendredi am internet chers téléspectateurs encore une fois ma jàkkaarloo ak yéen jàkkaarloo itamit ak ki nga xamante ne moom mooy oustaz saa su ne may fekk moom ci waxtu bile salaamaaleykum yaa oustaz waaleykum salaam xaaji kan ñu ngi lay nuyu tabaarakallaahu di a tabaarakallaahu aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu xaaji kan ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la bëggee di bëggee yi tabaarakallaahu mbokk yi nga xam ne fi mu ne nii tem ñu ngi jàkkaarloog leeral tv seen émission bi tabaarakallaahu di émission yor yor nga xam ne tabaarakallaahu lépp loo xam ne rek yàlla ko digaloon sayyidina Muhammad mu jëm ci xeet wi tabaarakallaahu bu ñu toogee dañu koy waxtaane insha allahu taala ñu ndokkeel ñëpp nag tabaarakallaahu ci sayyidul ayaam muy vendredi bu ñu nekk rawatina nag mu tombeek nag tabaarakallaahu weeru safar di dugg safar tab di tabaarakallaahu weer wu barke ngëneel bu ne xew na ci muy safar gi tabaarakallaahu macha allah ñu ndokkeel ñëpp ndokkeel tabaarakallaahu murit yëpp xam nga fi ne nii tabaarakallaahu ñëpp ngi bégee tey rek démb ci guddi rek la am ku ñëw sama kër naan ma fi ne nii nag ah. rakkaaju naa naan ma rakkaaju naa fi mu ne nii <laughs> tabaarakallaahu alin ma bëgg ko biir baarakallaahu macha allah tabaarakallaa ñaan yàlla yal na yàlla barkeel mbir yëpp lépp luñ ci ñaan ci ay alquran wala jàng ay xasida wala taral nit wala ay benn yàlla na ko yàlla nangu bi jaahi sayyidu wara muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cette occasion groupe leeral yëpp dafay organiser wu def immersion biir Touba dem ba Touba yóbbu ay reporter yóbbu ay animateur yóbbu ay journaliste ñu def loo xamante ne macha allah lépp lu aaju ci dundu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñu daal def ca loola am na spot boo xamante ne macha allah sama directeur def na ko ñu daal di ko seetaan ñoo exactement nan la nan la nan la leeral di préparé parce que dafay bokk ci événement gu ne leeral jox ko cër ci këru diine yépp mm-hmm. muy xaadir yi muy laay ni muy tijjaani di murit bi lu ne dañ ciy saf-saf mm-hmm. ren nag toute une équipe mooy déplacé wu def fa pendant une semaine mm-hmm. muy avant pendant et après avant événement ba la cay daal di am. ci événement ba la cay daal di xew après événement ba la cay daal di xew. baarakallah macha allah. loolu loolu daal tabaarakallaahu xewal la. loolu xewal gu rëy a rëy la tabaarakallaahu ñëw ci wala. waa ayca bismillah bu la bu la neexee Régis si c'est bon donc on lance directement ñu xool. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala ali wa sahbi wa xadimi tun xarajtu yowma sabti saamina asar li xidmati lmuxtaari fi saxri safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sunu góor ga jàmbaar ja Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul génn ngir liggéeyal soppem ba génn ngir liggéeyal boromam subhaanahu wa taala ba tax at gu jot ci Sénégal ci monde entier ñuy màggal 18 safar ba tax Leral TV ñëw ak yéen ci ay plateau spécial ay émission yoonu màggal ay interview ay reportage bis bu ne da ngeen am ay émission yu am solo ci Leral TV yow mi am safar ne fi nga ne bëgg leeral ñëw couvrir la sa safar leeral ubbi na la suñuy bunt dañ leen fekk ci seen i koñ yow mi soog a démarré ki ray nag ak ki ray gileem ak ki defar bañe ñoo ngi la leeral yemale daañu ñëw ba seen i kër ak seeni i gox ànd ak yéen ci safar gi safar gàngook ak groupe leeral média leeral TV leeral point net et leeral FM daañu leen bugge daañu ànd ak yéen di leen may ay cadeau yu am solo waaye rawatina yow mi nga xam ne mën en tout cas pour nous de voir ne moom mooy Ousmane. gis nga Ousmane ni mu ko préparé macha allah. macha allah moom mu gi. bu baax a baax mais mais kan safar gi ñëpp ko war a préparé. wallaahi alazim ni mu ko waxee Ahmadul Xadim. tabaarakallaahu nga xam ne génnam googu rek tabaarakallaahu macha allah ci la lépp melee nii. mu ne woon xarajtu yawma sabti saamin al asri li xidmatil muxtaari fii sihri safar beneen bi mu ne li xidmatil muxtaari fii afdalil basar Sayyiduna Muhammad nee na génn naa yow ma sabti bisu alti bisu samedi la saamina la asuri fukki fan ak juróom-ñett lu ko waral mu ne li xidmatal muxtaari ngir liggéeyal rasulullahi liggéeyal Sayyiduna Muhammad dong moo tax ma génn man daal li cooli di bëri bëri liggéeyal Sayyiduna Muhammad moo tax ma génn moo ko ñor wallahi moo tax dem na ba mu yàgg nee na liggéeyal gi may liggéey rasulullahi ñool màkk gërëm na ma saxaaba yi gërëm nañ ma ahlul badari gërëm nañ ma radi anillah wa rasuluhu wa ahlul badari wa ataani suulu dem na ba mu yàgg moom ahmadul xadim mu ne sama dund gi yëpp dama ko saxal ci bàkk yàlla saxal ko ci téere bi saxal ko ci bàkk sayyiduna Muhammad ba am ngër mande rasulullahi faasat xayaati bi baqaaillahi wa bi kitaabihi wa rasulullahi nee na sama dund gi yëpp dama koo tëxil man Ahmadul Xadim ci tudd yàlla tëxil sama dund gi ci bàkk sayyiduna Muhammad moo tax nag mu ne woon tabaarakallaahu nag douze mois moo am six mois yi damay bàkk Seydina Muhammad six mois yi muy julli ci rasulullah di tagg njol màkk ba njol màkk na sax ci kanamam mu jàkkaarloog moom naan ko antal karimu anta damiru mu xaatib la ki ngay wax ak la ahmadul xadim day tagg rasulullah ba rasulullah na sax ci kanamam ne ko ki ngay tagg mu ngi <laughs> maa ngi mu ne ko antal karimu anal dëxëral uddi mu fi kasanaal eh yaay ku tedd ki man maay ki lay liggéeyal diine jamono ku may tagg mooy yow rasulullah nga xam ne nag tabarakallahu moom dund ak yëpp sayyiduna muhammad la ko joxoon léppam rasul la ko joxoon moom bàyyi basak baara maami dadax seex bëkki yaakaaru seex isaa jenn borom njën nag la gën maami sini seedeek naar góor gi demoon gabon wiiri wiiri nag jaar maa yombe wiiri wiiri delsi samp jumaa Touba samp jumaa Njaareem kookoy muhammad bun abibullahi al makkiyu al maarifa ahmad bamba xaadim rasul góor gi taaw loo Moustapha càpp loo Murtada jàkkaloo rasul tagg ko ne ko antal kërimu alal xaddimu dëhrul udimu fii kasanaawu maa bàyyi sëñ Moustapha Mbacke ana ku bëgg Cheikhul Xaddim yàlla nañ ko yàlla bëgg bëggloo tabaarakallaahu macha allah waaye nag tabaarakallaahu moom dundam gi yëpp rasul la ko joxoon dem na ba mu yàgg mu ne qalbi wudiatu li rabbi wa lisaanihi maal jawaarihi wal fasu bi hisaan gis nga xoolal xoolal wax ji xoolal rek ni ko ni ko Cheikhul Xaddim waxee nga xam ne xam ji daa bëri waaye nga xam ne nag fasaxa gi daa bëri lool sëñ Tuubaa nag boole ko dégg daa dégg dégg nga lu ma daf ne xal bii sama xol bi waddi atun li rabbi wala lisaanihi sama xol beeg sama làmmañ bi yëpp dama ko dénk ko jox ko yàlla man ahmadu lu ma wax daa saf sàpp ak yàlla man ahmadu lu ma diggali boo ci xoolee gis ca yàlla lépp lu may wax yàlla yàlla rek <laughs> nee na sama xol bi yàlla sama jëmm ji yàlla mhm. mu dem ba mu yàgg ne mu ne maal jawaari yi dem naa nag ba sama cër yëpp yàlla lay saf sama loxo bii lu ma ciy bind yàlla sama bët yi lu ma ciy xool yàlla nee na wul fës bi lextaani looloo waral nag man ahmadul xadim sama lépp ñoŋee sama lépp ñoŋee sama tout tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla doon dolli cofeel ci moom màggal gaa ngi noonu gaa yëpp tabaarakallaahu waajal ko nga xam ne ngëneel yu réy réy réy ci am nag mm-hmm. waaye màggal gii ñuy waajal ngëneel yu rëy rëy ci am bu ko kenn naate tabaarakallaahu na ko gaa yi bàyyi xel kon nag màggal gaa ngi noonu le groupe leeral encore une fois di leen euh, proposer ay services yoo xamante ne c'est des service commerciaux waaye nag ngeen mën ko euh, jëfandikoo ndax xéewal la ñuy def ci yéen numéro commercial gaa ngi noonu boo ñu bëggee jot woo leen ñu euh, ci 78 136 52 52 ñu defal leen xéewal ngeen yor boutique loo leen mënta yor incha allah leeral dana daal di dem ci au cœur de l'événement donc encore une fois ñu dellu ci ci suñu plateau yor yor ñu xam ne ñu ngi woon ci thème bu am solo goo xamante ne ñu gën a bari soxal na leen comme ni ma leen ko waxee ay muskalaf yoo xamante ne dañuy daal di toog di laajte des questions waaye alhamdulilah oustaz da ci daal di tontu en direct aussi sur Facebook sur Instagram euh, sur YouTube mën ngeen ñëwoo au 33 836 02 02 donc 836 02 02 ngeen wooñu ngeen xam ne ci loola ngeen ñu mën a jotee poser ñu seen i question yaa oustaz la prière suite julli farataay njàpp ak ñu dellusiwaat nag tabaarakallaahu ci thème bu ama am am solo bi tabaarakallaahu muy asalaat julli nga xam ne tabaarakallaahu ngëneel yi mu làmboog bëri na lool ñu waxoon ko yàlla nag tabaarakallaahu moo wax rasulullahi ne ko waxal sa jaam ñi ñi ma gëm ñuy julli waaye bu ñu yem ci julli nañuy julli ca waxtu wa waxoon naa ko inna salaata kaana alal mu'miniina kitaaban mawquuta léegi yàlla waxaat ne ñi nga xam ne du ñuy julli ci waxtu par force dañuy dugg safara xëy fa sawfa na gay yàlla nee na kuddul dul julli safara xëy faaw dañ la fay dugal xam nga safara dafa am ay appartement ay apartement biir safar nee na ku julli da nga fay jaar waaye ku dul julli ci heure yi maanaam nga sànq waxtu ba wa tabaa shahwaati nga topp sa bànneex ba julli woo sa waxtu nee na yàlla nee na fa sof yàlla xam na xëy moo tax koy liggéeyal ak ku mënta doon kan bu julli jotee dagg ko dem julli ji ak alxuraan def na sa bànneex dong ngay topp bànneexu àdduna la lan fay fayeeku lu ci mën a doon bànneexu àdduna la yàlla nee na nag ku topp sa bànneexu àdduna yooyu ba ñàkk julli ci waxtu wa fa saw fa yàlla xaw na xëya xasef ngaa dajeeg safara xëya yàlla nañ ci yàlla musal bi jaay gis léegi Iduna Muhammad léegi nag yàlla nee na nañu sàmm julli parce que faratali ci ñun léegi nag njol mbàkk waxu wax ju wér nee na ku dajeek yàlla rasul nee na képp ku dajeek yàlla te ba ngay dajeek yàlla sànk nga benn julli yàlla nee na bépp jëf boo musa jëf awma ci soxla man laqaya llaaha wa huwa mudayyun li salaati lam yaba illa bi si ilil xasanaati nee na képp ku dajeek yàlla kan bàyyi benn julli lépp lu musa def ci lu baax yàlla li jëntuwu ko lépp lu musa def ci lu rafet yàlla li ko bu dee nag da ngaa toog naan sama xol dafa rafet. julliwuma naan sama xol dafa rafet. yàlla xol lay fay. yàlla xol lay fay. sama xol dafa rafet yëguloo ne sa xol bu rafetee lépp lu la yàlla digal nga ne ci. njol màkk daf na sa xol bu rafetee bu baaxee sa lépp baax yow nan la sa xol rafetee te mënoo julli kat. daal lu na waar. xam nga rasul daf ne sa xol bu baaxee. isaa salaha salaha jasadu kullihim bu sa xol baaxee bu yéwénee tuu yéwén waaye way saa fasada fasada sa kul bu bonee yiis sa xol sa lépp yiis waaye yow léegi nga taxaw ne sama xol baax na te du ma te yàlla xol lay fay. te yàlla xol lay fay. yàlla waxu la ne la nàngam ak nàngam daf na ne sa xol baax mu pare nag mu ñëw fay yéene. jullit bi day fas day fas yéene julli kat day yéene julli léegi nag rawatina nag aljuma jiinu jëm. julli farata aljuma dafa am ci ñu nekk farata kan pour ñuy julli nañ ko nañ ko bàyyi xel. muy muy muy sangu farata muy muy muy julli julli. ah julli ji. julli ji waaye nag sangu aljuma bis boo sangu aljuma kan. rasulullah ji nee na képp ko sangu bisu aljuma. nga sangu ku ku farata anhu sunubuhu wa xataayuhu bàkkaar yi nga amoon yëpp raafoon nañ la ko jéggal la ko. nga sangu sangu juma ca semaine ba. beneen aljuma ñëwaat nga defal ko ñu jéggal ko beneen aljuma ñëwaat nga def ko beneen aljuma ñëwaat nga def ko beneen aljuma ñëwaat nga def ko nga di ko teg la ay aljuma ba xëy faatu kan looy dese. yërmande dara lu des rek mooy tabaarakallaahu jàkkaloog yàlla nag am yërmandeem. wallaahi xadis bi nag tabaarakallaahu nekk lu wér. Mm-hmm. rasulullah ji nee na ku sangu sangu jumaa sangu jumaa nag dafa am lu ko yàq kat. bokk na ci yuy sang sangub juma boo xasee sangu doo toog ne damay añ ba pare doo ko dem. sangub juma du sangu farata wala. du sangu farata maanaam sangu la ngir ngëneel yi ne ci juma bu la neexee nga bañ sangu sax dem jàpp rek dem. waaye dafa daa daa bokkul genre euh, sangu farata gi ndax moom mooy sangu juma ji. moom mooy sangu juma ji. ah d'accord maanaam ni ngay sangoo farata. noonu ngay sangoo sangu juma. d'accord kat léegi nag tabaarakallaahu rasul wax ngëneel yu riiri ci tabaarakallaa ko ki nga xam ne dafa dafay dafay dafay dem dafay dem julli ci waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bàyyi ñetti aljuma ñetti aljuma min xayri asrin ku bàyyi ñetti aljuma min xayri asrin nee na kutiba minal munaafiqiina bind leen la booleel ci naafiqi yi maanaam nga toog ñetti aljuma julli nga boole ñetti aljuma julli woo ko julli ji woo wala julli woo julli ji woo maanaam demoo juma te amoo benn ngant demoo juma te amoo benn ngant Rasul nee na boole nañ la ci naafiq yi kan. allahu akbar am na beneen hadis boo xam ni Ibnu Abbas moo ko solo. daf ne boole nañ la ci naafiq yi te sa tuur lañ fa bind de. dañoo bind ne diw mii julli jiwul. nii Aliou Badara nii. diw diw julli jiwul. Mbay Faal nii julli jiwul. nañu ko bind moom doomu diw julli jiwul léegi nag bis ni tey boole leen ko ci naafiq yi parce que ñetti àll du ma julli julli jiwul te benn ngànt. allahu léegi nag kat dafa am ñoo xam ne aljuma farata la ci ñoom fardun ala ayni muy ci ci ngay ñëw mooy ñi nga xamante ne aljuma farata ci ñoom aljuma dafa am ñoo xam ne farata ci ñoon am ñoo xam ne dañuy fay toll muy ngànt ci ñoom am ñoo xam ne dañuy sut ñu dem am ñoo xam ne obligatoire dañoo war a toog ndax loolu maanaam firi loolu ci lay ñëw xam nga xam nga fardu dafa am fardu kifaaya ak fardu la ayn borom téere bi nag nee na julli juma fardul ayni la fardul alal ayni salaatul jumaati sartul wujubiha dafa am sart yi waral na yow da ngaa war a julli ji mu ni ihdaaduha fii sittatin boo koy liim juróom benn la zukkiratun kan góor daa war a dem julli ji góor juma war na ko wareef la ci moom alxuriyatun ak góor képp koy góob jumaa war na la mais jaam jumaa war a ko jaam nag moom amu fi fi mu ne nii. jaam moom amatul gaa yi bàyyi xel na la tabaarakallaahu jaam amu fi. waaye dafa topp loo xam ne tabaarakallaahu dañ ko jàngale woon dañ la koy mais jaam war na ko. déedéet yemu ci ne moom. waaye ak iqaama ka sax ca dëkk ba. jumaa war na la musaafir jumaa war a ko. muy wàcc na ko. muy mooy ku voyage. Ah. comme liñ fi jàngaloon ku voyage si. xam soto am yàlla man mën mën mën ngaa bañ julli ji juma. mën na bañ a dem julli ji juma parce que waru ko. naam. bu ko neexee nag dem. am yiw yi ci ne. am yiw wacca ne. waaye bu julli jiwul toog këram it julli julli jumaa ja wàcc na ko. Mm-hmm. waaye tamit nag wal xutbu ak jege. kan. maanaam gën boo jegee jumaa ji. maanaam lu mu ne ci jege bi mooy maanaam dëkk bële. moo am. te sama dëkk bii amul juma. bu dee dafa sori carrément dalay wàcc kan mais wàllu xurbu bu dee jege am na da nga dem julli ji am na ñoo xam ne dañoo mesurer ne bu dee moo moo kii bi sóoróol bi bu dee mook sóoróol bi ci boppam am na kilomètres yoo xam ne bëriwul dañ ne nag julli ji farata la ci yow. mbaa boo ko déggee la. bu noddee nga dégg. Ah. benn mais am na sax ñoo xam ne dañ naan bu noddee nga dégg te affaire yi sori loolu doo mën a dem. loolu amoon na misaal bu ñëwoon ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam am benn am na benn koo xamante ne dafa silmaxa du gis mu laaj yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ndax fajar gi mën na toog këram julli ko ndax du am ko ko wom maa ngi ñëw xanaa xamoo jumaa sax jumaa sax kan li ngay waaj a wax noonu yeggalil mhm. li ngay waaj a wax léegi nag bi mu laajee yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko du bu bu ñodde yaa ngi dégg mu ne ko waaw mu ne ko war war na la da ngay ñëw. donc kooku je pense que mën nañ koo yóbbu tuuti ci koo xamante ne dafa war julli ji juma. ki nga xam ne dafa war a julli ji li borom téere bi di wax mooy. ku mhm. sori dinaa ñëw ci kii gumba lu tax mu tabaarakallaahu silmaxa bi rasulullahi waxee ko noonu. Mhm. ndax moom it dafa ñëw ci tabaarakallaahu mbirum jumaa ji. Mhm. bu soobee yàlla incha allahu taala. léegi kan. ki nga xam ne dafa sori. jumaa waru ko. affaire yi sori na ko mu dëkk fi sori kooku jumaa waru ko xam nga lu borom téere bi wax wal qurbu beneen bi ci tamit nag mooy al istitaan dëkk bu dee da dëkk ci dëkk bi nag jumaa war na la dëkk ba la mu sori sori kan war na la force la mooy bu doon Dakar fii benn jumaa rek fi am jumaa ji fa mënta nekk ñun waa Dakar yëppay julli ji. même boo ko dégg. même ba xoola ñun ñëppay julli ji fa nga dëkk bu ñu tudd lu ñuy wax Dakar. Dakar boo jugee fi dem village lu ñuy wax ana bu kii jógee fii kii jógee fii ku jógee ka jaga jàkk jàkka jee nag lu ñuy wax waa Dakar la ñuy wax kan nag borom téere bi istitaan la wax ku fa dëkk ka fa dëkk jumaa war na ko mais nag bu dee ay dëkk yu tàqalikoo la comme village dëkk ba fële ak fii dëkk balee am jumaa sori na la kan kooku mën nga am ngaa totoog dañ julli tisbaar su ma sixaat nag topp wiir bokk na ci ku jumaa war ba léegi kan koo xam ne dafa wiir maanaam ku jumaa war muy ku wir kon tuddal naa la tabaarakallaahu juróom-ñett góor jumaa war na ko góor jumaa war na ko ku sax ca dëkk ba maanaam nga dëkk fa voyage woo jumaa war na la mu jege jumaa war na la nga dëkk fa jumaa war na la nga dégg ko nga dégg nga dëkk fa it tabaarakallaahu dégg mbir mi waaye nag wér maanaam sa wér gi yaram may wér mais feebar boo mënee boo feebaree doo julli ji waa ci boo ko mënee boo feebaree ba mënoo dem doo julli ji kan. waaw loolu bu dee dafa am it koo xam ne dafa feebar nga war ko taxaw doo julli ji kan ku feebar nga war ko taxaw kan jumaa wàcc na la da ngay taxaw danga koy taxaw waaye kan koo xam ne it dafa dañoo teewal diggam da nga koy taxaw wa kaw ni kii su suru sënil muxtasar maanaam koo xam ne dafa teew diggam day waaj a faatu nga yëg ni kii mu ngi waaj a sukuraat ndax toll yu mu toll dangay toog nag xaar mu pare nga dogg li dafa rek ca aju ba téere moom la wax ni. daf na tamit nag wa siddatul matar ak taw bu taratar kan doo dem da ngay toog maanaam jàkk jaa ngi bëgg a julli aljuma waaye taw bi taw na ba mënoo dem sariya daf naan la toogal aw maridin. tàngaay nag mënu laa tere. da ngay julli ji. am nay village yu tàng yow Oustaz. waaw da julli ji lu mu tàng tàng da ngay julli ji imaam yi dañ gàttal xutba yi rek kan xutba kii jarul guddal kan. waaye nag xutba lu am solo la. xutba lu ama am solo la kat dinaa la wax xutba lan mooy taba waree fam ci jumaa dama ci ñëw léegi léegi. wax la ki ñëw fekk ñuy xutba it lu ko yuntu yàlla Muhammad digal mais dama ne la kan xutba yi nañu ko gàttal bu tàngee dañ ne la boo ko gàttalee da nga yàq xutba bi mën nga ñëw indi benn aaya ak benn xaddis tong muy xutba gu ku koy dindi kan am na xutba universel de mu ñëpp di def waaw am na am na boo xam ne moom tabaarakallaahu ñëpp koy boole def la moom ñëpp am na am na boo xam ne ñëpp koy boole def mais am na ñoo xam ne ñoon ñooy dem bind seen xutba yow mi fekk xutba ban moo gën man yow yow yow xutba moom tabaarakallaahu boo demee ci euh, Ahmad ibnu Muhammad at-Taahuni mu ngi bind tabaarakallaahu benn téere téere ba di nettali ba rasulullah yi ñëwee madinatul munawara xutba bi nga xam ne moom la siiduna Muhammad nekk ko xutba nga xam ne dafa ñëw déppan naan alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa astaghfiruhu mu dem ba mu yàgg mu naan man yuti allah wa rasulu faqad rasada wa man yaxsi llah wa rasulu faqad qawa naan usikum bi taqwallah léegi kat yooyu nag boo ko waxee fay noo gayrallahi loolu nag dégg na kat kan yooyu kese doy na léegi nag kan xutba kan sa may mot foofu tuuti xutba nag kan xam nga lan uh-huh. nekkul ay comme lii ci gën ak lii ci taxaw xam nga xutba lan mooy tabaarakallaahu nga ñëw wax loo xam ne gars yi dañu koy dégg. waaw oustaz ñun ñun ñun orienté leen. ñun ñun yaa xayti xutba yu ñuy dégg ñu gën a bari dégguñu dégguñu arab. waaw nag xam nga nag. te ñun ñu ci gën a bari universel gi comme ni nga ko waxee. waaw inna alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'in. waaw xam nga kan ñu ci gën a bari. yaa xayti waaw xam yi dafa am ñoo xam ne nangu neen wax ko olof. moom ci boppam mi ngi topp moom daf ne xutba mënul am ilaa bi luxatul arabia lu dul ci la araab kese lay amee. imam Malik arab la yaa xëy. moom imam Malik dem na ba mu yàgg kan. dégguloon olof. waa kan. kan moom dem na ba mu yàgg mu ne bu dee mat ngeen sart yi war pour ngeen julli fukki nit ak ñaar yi mat xam nga moom it ba léegi loolu la wax fukki nit ak ñaar day mat di julli ca juma ca jàkka ja ñu mën a soppeeku taxawal juma. imam Malik nee na ñooñu bu ñu matee te amuñu ku dëkk arab mën a ñëw xutba arab nañu leem mbir ma te julli tusuwaat dem seen yoon. waaye oustaz. léegi nag loolu tabaarakallaahu ci ngiru imam Malik la man nag kan ngiru imam Malik rek laay wax waxuma ci détail bi waxuma ci lii waxuma ci lii. xutba lu ci ëpp. ñi ci gën a bari pour yeete la. pour woote waat jaami ñu daje waat. léegi nag léegi na xam nga xam nga lu waral bayaan. Mhm. mooy laataa ñuy xutba li ñuy bayaan ñu bayaan ko ak kum ci mën a doon làkk bala neex nga bayaan ko ca kan. waaw loolu du force. ah waaw bu la ne bu la neexee nga a kan. nga am ñoo xam duñu bayaat. kat moom laa la bu la neexee nga bañ a bayaat bayaat mais bu la neexee li ngay xutba nga ñëw taxaw bayaat ko. waaw mais du bayaat xam nga lan la du yaa wax mën ngaa indi xadis ak ak ak ak ak ak benn aaya nga nga firi ko ñi ñi yàlla nee na lii topp leen lii bàyyi leen lii salaamaaleykum wa rahmatullah. loolu dama ne la ci bayaat nga laa la wax waaye man ci ngir imam Malik laay wax booy xutba kan kan booy xutba ngir imam Malik doo wax lu dul luqutul arab arab ngay wax. lii mooy li nga xam ne moom lañ fekk ci téere Imam Malik lii tabaarakallaahu moom mooy saxee mooy mun la xam léegi nag léegi nag bu dee li ma wax ne xaddis beeg aaya bi ba léegi mën nga ñëw bayaat firi aaya bi firi xaddis. mais man dama ne. looloo gën maanaam. comme ça parce que ñi ngay waxal pour delloo leen ci yàlla la mais boo leen di wax lenn loo xamante ni xamuñu ka. mën na indi seen ni parce que tey pour par exemple nga dajale mbooloo boobu yëpp da fay ay nit indi ay bâche loué ay lini yàlla may leen xéewal goo xam ne ñëpp dañ koy daje plus de mille personnes ci benn juma wax leen li ñuy dégg balaa ñoo dem. kan bayaan da ngay bayaan nga wax nit ñi luñ dégg. maa ne mën ngaa bañ a bayaan baay bayaan bi fee. ba leen ci li mu mën a dégg li ma la wax dama ne la da ngay bayaan nga bàyyi ko teg fee man ngir imam Malik laay wax ngir imam Malik daal li mu ñu sant mooy lii. amul leneen. lii la ñuy imam Malik sant. Oustaz daal imam Malik lay jàngale. waaw imam Malik rek moom laay jàngale kan sunu mag yi ci réew mi yëpp imam Malik lañ toppoon. baax sunu yi ci réew mi doo ci dem kenn. doo ci dem kenn ci benn la ci benn yi. doo ci dem kenn ci jumaam fekk. ma dama ne imam Malik benn la ci benn yi. doo dem fekk fa lenn may ma déggoo li ma la wax xam nga man toog naa fi waxul tuddal la wax nga ma kay. tuddal naa la ngéeri. Mhm. léegi nag tabaaraka laaw bari na yaay choisir ñu nekk Imam Malik lañ choisir suñu mag yi ci réew mi yëpp moom lañ choisir ñun Imam Malik lañ choisir. <laughs> kan bu loolu jàllee nag taw bu tara tar bu la neexee nga bañ a dem jumaa day taw nawet lañ nekk mu tar mu ta taw bi tar lool kan bu la neexee toog mais ay tàggaay yooyu yëpp tudduñu ko. aw maradan aw dabbul maslum wala ma wóor na la ne jàkka ji boo fa demee am ku la dóor tooñ la kan toogal. maanaam nga am koo tooñ nga xam ne boo dajeeg moom ci jàkka ji. wax yeggu ma sax foo waaye koo xam ne boo yeggee moom mu tooñ la dóor la. kan bul dem kat nga yoral nit bor. Ousseyn kenn du dem de. kat déglu ma kat nga yoral nit yow seen jumaa da ngay dem ñu dóorul. Ousseyn non am na ñoo xamante ne dañoo nit ñi rek naturellement. kenn kenn doxu fi nag ñu dóori wala nga teg sa daal mais kat Ousseyn nga teg sa daal ñu jël ko. terewul a dem julli ji da ngay julli ji. Ah, te fekkee di la gis nga tamit nee na aw absu bi sulmin aw adimiha. Mhm. beneen bi ci des mooy kan nga yoral nit bor. amul da ngaa mu wur na leen ne boo demee ñu tëj la bu leen dama seede ji ko. Oustaz mbirub jamono moo tax ngay nga nga bañ a dem juma. ragal prison. moo moo déggoo li ma la wax borom téere dafa wax leer te ngir Imam Malik lay wax ba léegi xam nga lim la wax daf na la bu dee wóor na leen na ne amoo waaye nag boo am boo amee dem par force yow la ci yow la boo demul di nga am ñaari bàkkaar. benn bi bàkkaaru fay parce que ñi yoreel bor nit ñi nañ leen fay kan. Ah, kan ñi yoreel bor nit ñi nañ leen fay mais kan yoreel bor nit ñi di daw rek. surtout màggal gii di ñëw. mais nañ fay nit ñi seen bor yi kan. nañ fay murid yi nañ fay murid yi seen bor yi ku ci ameel bor murid fay ko nu mu gën a gaawee kan. waaye yu teewoon na ko nag kan. léegi nag kan bokk na ci aw xërëmu ku màgget. ku màgget ba mënul dem kat na toog. aw akulu ka suumi. wala koo xam ne dafa lekk soble wala laaj mu xesam xunn ci gémmiñam kan kooku mën na toog oustaz parce que bu demee day lor nit ñi d'accord aw man yadduru naa sa kel ma ji suuf may ma foofu ñi xamante ne tey par exemple comme ay mécanicien comme ay soudeur wala ñeneen ñoo xamante ne yow da ngay solu nga bokk ak ñoom benn sàppe yow oustaz <laughs> benn sàppe setuñu sa yére yi ñuy sot setul te julli tàmm nañ ci nga set cell mais ñii ni ñuy xëyee noonu la ñuy taxawee julli taxaweek ñoo xamante ne seen yére yu weex lañu sol ak neneen loolu te ku takk sobleek wala ay laaj ak affaire yooyu ni muy déranger est-ce que loolu tamit du àq. xam nga Rasul moo ne képp koo xam ne yaa ngi julli ji te sa xetu gémmiñ xeeñ ci côté sobleeg laaj nga lekk ko ba pare rek añ ba pare rek bëgg a dem déedéet bul dem parce que boo demee dangay ngay loor nit ñi. léegi nag ki nga xam ne attaque mécanicien la kan mais ay yére mën na làkk. ah waaw yaa oustaz mais mën na laa mën na. mën na. lu ñu gis fii. mën na waaye sa yére bu laabul kat nooy jullee xam nga bu ma koy jàngale euh, faaw ñu jàngale taxaatul xadas ak taxaatul xabas. lu tax di yére di julli. taxaaratul xadas taxaaratul xabas dafa am. mu am xadasul asqar ak xadasul akbar bu dee nag taxaaratul xabas xam nga mooy lan. Hmm. al batnu wal sawbu wal makar mooy sa yaram sa yaram day laab kan. Hmm. sobe du ci nekk. Hmm. wal makar bërëb bi ngay jullee kan day laab. wal wa wa saw bu ak sa yëre yëre yi nga sol kan day laab force nga mën a julli bu sa yëre laabul boo julli amoo julli da ngaa entraînement ah, loolu de baax léegi nag kon tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu bàyyi ko xel waaye nag bu dee nag laab na ñu ñëw taxaw loolu leen wax rek mooy ñu su nit ñi bañ a tabaarakallaahu mm, kii bay taqal yëre jàmbur ah, parce que l'islam non non l'islam l'islam bëggul bëggul l'islam bëggul kuy loon doomu aadama yëngatu na bu ci bus yi ci bus yi bu lor waaye bu lor. saa am na ñuy lor nit ñi xam nga dafay xat des fois da ngay gis kii di xëy sol teneem bu tilim kii di xëy xëy sol teneem bu bu set ngeen bokk fi ngeen taxaw mu naaj la ba sa yére tilim. jaaduwul de. Oustaz loolu dafa bari ci dëkk bi. jaaduwul ñoo xamante ne dañuy xëy wala di dem leneen mais ñoom ni ñuy maanaam ñu ñuy ni ñu nekkee seen bërëbu liggéeykaay li ñu tilimeen. kan la ñuy yéegee ci oto bi ak seen ñaqaay. kan am na yoo xam ne àq la gis nga lislaam dafa fokk doomu aadama ba pare nag bu fonk cëru doomu aadama xam àqeefu doomu aadama. fi nekk yaa ngi jullit yonuntu tere na la ngay loor sa moromu jullit ci côté bu ne nga soobu ci oto bi di ko yor sol sol boo xam ne yaa ngi loor sa mburu mu jullit. ndax bëgg na sax jege wax dëgg fa yàlla. am na ñoo xam ne kan dañuy dugg ci oto bi kan te duñ sangu kan am na ñoo xam ne dañuy dugg rek tabaarakallaahu changé beneen odeur xeet ci oto bi. waaye déwoo 1000 francs lay jar am na ñu ko soxla nag. di yow dara. waaw na koy gars di jënd parce que ci la bokk. na ko gars yi di jënd ci la koy bokk léegi nag kan fi may daane léeg ci côté boobu ñi nga xam ne jumaa war na leen. Badou Badou na laa yaxtadi bi nafsihi ak koo xam ne kan. dafa dafa silmaxa. kooku jumaa wàcc na ko allazi laa yaxtadi bi nafsihi nag koo xam ne mënul orienté boppam ba ca jàkka ja. silmaxa mënul gindi boppam ku silmaxa ba mënul gindi boppam ba ca jàkka ja. wala ku dem ba màgget ay bëtam muuru. ba mënul orienté am na kàttan moom màgget na am na kàttan waaye bët yi muur xam kàttan ku kàttan xam nga mën nee naa la jumaa na ko aw xërmahu mhm. waaye nag koo xam ne kan dafa màgget boolu ko bët yi wala it mu nekk silmaxa mhm. koo xam ne amul ku ko mën a orienté ba mu yegg ci jàkka ji mhm. kooku nag tabaarakallaahu jumaa wàcc na ko bu dee nag aw lam yajid min faidi yi fi léeg amul koo xam ne orienté na ko ba mën a yegg waaye fi mu ngi am ku ko mën a orienté jumaa jooju farata la ci moom mu dem julli ci kon nag tabaarakallaahu faratee jumaa ngoog léegi nag faratay na tabaarakallaahu kan ma ma ma ma ma waaxu ca wàcc sa mhm. comme dañoo ne ci aljuma ji rek ma waaxu ca léegi nag ñi nga xam ne jumaa war na leen mhm. ak sart yi ñu koy joxe mhm. ñeent lañu ñu koy joxe mooy mbooloo mu am assurance jumaa du jàkk mooy comme li ma la jàngale woon sànq rek ak imam boo xam ne dafay xutba ñaari xutba ya mu taxaw wa xutbataani fiihumaa yaqum waaye nag xutba ya wam naax kalaaman imam buy xutba tere nañ li may ak jàkka ju ci jàkka mënuñ faa julli juma. ci jàkka xanaa ñu orienté ko jumaa maanaam. maanaam ñu toog jàkka ñu toog ba yàgg na léegi dañu koy def juma mën nañ di fa julli juma. dafay dong changé. waaw. mais tur rek amul defaraat dara. amul defaraat dara mais doo jékki-jékki rek mais bon comme que jàkk ji moo nekk ci ci fii te fee sori nañ ko nañ taxawal fii juma. waaw nañ taxawal juma bu amee bu amee lim yi mu wax moom fukk ñaari personne la wax bu amee am na ñoo xam ne kan dañ ne bu dee ñetti nit rek fa nekk ñoom nañ woote ñi ni gars yi di julli juma mais moom xam nga imam Malik lu mu wax mm. comme moo ëpp ci réew mi man moom laay jàngal ngir imam Malik nga ëpp ci réew mi këru diine yëpp moom la ñuy tabaarakallaahu refe moom nag ci moom laa jàngal léegi nag nee na bu dee fukk ak ñaar personne deux ñooy julli ci suñu maaji waxtu yi ñooy julli tisbaar takkusaan timis géyee ñoom mat nen mat nen douze personnes ñooñu nag bu leen neexee nag ñu taxawal jumaa léegi nag jumaa nee na mënul am fu dul ci dëkk mënoo dem ba ci àll ba nga taxabal fa jumaa kenn jumaa ci dëkk ba lay am ca biir dëkk ba waaye doo dem ba ca àll ba fu kenn dëkkul nga tabax nga tabax fa jumaa kon maal am ne xaw a jaamoo suma imaamu qaatibun muqim wa xutbataani fii maa yaqub imaam boo xam ne day ñëw taxaw na xutba ñaari xutba yi buy xutba mu taxaw waaye nag wam nax kalaaman teranan buy imam di xutba am koo xam ne day taxaw di wax wax ju bëri mais imam day xutba nga gis magum jëmm yubbi jaaw toog xale di déplacé ñu ne ko eh, toogal nii eh taxawal nii eh defal nangam. te day wala sax ay xale yu nekk ci jumaa ji yaa oustaz keng keng keng gu dul jeex xale di dakkante mag ñi toog di gis. xale yi di daggante kan mag ñi toog di mais xam bu imam di xasee xutba amatul wax bu imam di xasee toog bay xutba amatul julli ñëw di julli ñaari rakk yi rasul nee na bu imam xasee toog ci manbar bi amatul nga ñëw naan da ngay naafile. waaw euh, foofu foofu nag am na ñi am na am na ñu wax mën mën ngaa julli ñaari rakk am ñu ne mën ngaa mën ngaa bañ julli ñaari rakk. déggoo li ma la wax kan dama ne la téere bi def na xam nga fan la ñuy sibee ngay julli rek foofu dafa xaraam imaam toog bi xutba commencé xutba ngay julli ñaari rakk. xaraam wax dafa dafa araam mut la xan ci ngir imaam Malik yéeguloo ne naafile dafa am fu muy araamee. waa mais tey. naafile kan dafa aram foofu aram ci ba nga jullee fajar ñu sib ko ci ba nga jullee takkusaan. waa ay aram araam yooyu noonu dama ne. bu fekkee ne par exemple imam mu ngi xutba nga ñëw julli sa ñaari rakk loolu kay. du dafa xaraam kan sunna la yaa oustaz kan loolu sunna la. dégloo ma déglu déglu déglu ma wax la. ngir imam Malik gi ñu tënku man moom laa yor. waaw bi ñu tënku ñun ñëpp man mii tënku naa ca. mais dama léegi nag kan waaw léegi kan. de waaw de cadre général de cadre global yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam am na xutba bi mu doon xutba jàpp ma bu baax. aaya bi waa ji ñëw. waa ji ñëw mu dagg xutba bi ne ko jugal nga julli ñaari raq. li ngay wax kan xam naa ko bu baax a baax. waa léegi loolu nga ne nga ne lu mu def dafa dagg xutba bi. waaw dagg xutba bi ne ko jugal nga julli ñaari raq. kan est-ce que xam nga ba ban waree fa tax mu wax ko loolu. bismillah yaa saas est que xam nga ban waree fa tax mu ne ko jugal nga def loolu. xaram bi nga wax moo tax ma wax ko. est nga ban waree fa tax ma wax ko loolu. Hmm. parce que waajooju ci boppam kan dalaan teel a ñëw di ñëw di julli waa ji ci boppam moom dalaan teel a ñëw di ñëw di julli am ngant bi ko dab rasul xam ne ne am na ngant ba ko dab mu ñëw ñool màkk arrêté ne ko xut ne ko julli waaw bu xaraamoon du ko def ci waa léegi nag li kat déglu ma wax la déglu ma wax la dafa dafa arrêté bi ko defee ba pare da dafa ne léegi faqatat bu kenn julli ci gannaaw imaam bu mu ñëwee déggoo li ma lox wax déggoo li ma la dama ne la kooku dafa am li mu doon def moo tax ba mu ñëwee rasul ne ko jullit. waaw mais lim doon def te te di laan teewe mais nag léegi ngir imam Malik bii ñu nekk kan li ñu jàngale kan mu leer naan nekku sax man jàlluma ci ngir bii. jàlluma ci lii waxuma ci lii waaw man nag ci yooyu laa new man xam nga ci lu ma nekkan wax li nga xam ne moom lañ fekk ci téeru imam Malik ñu fekk ko fii nit ñi di ko doxal. fekk ko sunu nag yii yor ko. kan man ci yaay ci ci yooyu laay wax. bismillah waxuma tabaarakallaahu ci beneen affaire. léegi nag kooku noonu ki nga xam ne dafa ñëw fekk imam di xutba ngiru imam Malik bu ñu nekk dafa alaan ci moom mu ñëw naan day ji day julli bu ñu xasee nag di nodd ñetti nodd yee mu ñëw di di di julle dañu ko sib wakkul yaa indal asani naf di kattar ki liste naa ne sax bi boobaa sax nee neen ngiru imam Malik nee nga bàyyi ko muy lu gën mu ngi noonu ngiru imam Malik ñun moom moo ci moom rek wax dëgg fa yàlla vie et de c'est école la li mu jàngale bari na yaa oustaz. li mu jàngale mais lim ci même imam Safia même imam Safia ci boppam imam Malik ko jàngal. waaw mais am na yu ko jàngal yu bëri bëri. wuute kay mën naa am. ixtilaaf daa am. mais xam nga xam ci biir saxaaba yi sax ñoom ci seen bopp dañuy wuute yaa xayti. man waxuma la fi ne la ay saxaaba wuute wuñ. yonentu dénkuñu xulafaaw raasidiin yi. waaw léegi xulafaaw raasidiin yéen ñu dénk tooguñu wuutee masala kan ñëw naa ci masala bi. léegi nag waaye imam Maalik imam Shaafi ay taabi yi. waaw léegi sax du ay taabi taabi. waaw léegi déglu ma déglu ma man xam nga xam nga lu may bañ. Mm-hmm. ñëw di détaillé di indi beneen ngir gi beneen ngir gi yëf yi day jaxaso man xam xam nga ci lu man ngiru imam Malik dong laay jàngale <laughs> lépp lu ma la wax ngir imam Malik laa lay wax. Ah, waxuma la beneen ngir. waaye nag xaram bi nga ciy man mooy tax parce que boo nee xaram dafay mel ni. da ngay da ngay da ngay jéem a liwal euh, je pense que Adji Adji vous pouvez vous installer en attendant. kan allez-y kan. Mm. loolu mooy li ñuy jàng ci ngiru imam Malik. Mm-hmm. nee na bu imam xasee toog bay xutba araam na nga ñëw naan dangay ngay julli nga kañ kan araam na ku fa toog di wax mm-hmm. araam na ngay nuyu araam na ñu nuyoo la nga fay wam na kalaaman aw salaaman yooyu dafa araam ci ngir imam Malik léegi nag bu ñu demee bay nottu ñett nodd yi nga ñëw naan da ngay julli dañu ko sib d'accord dañu koy sib waaye nag nee na wakkure àndal asaani nafle kattan ki liste naa ñu soxli nga bàyyi ko sax bañ ko julli moo ñu gënal. maanaam. nga bañ ko julli bu ñu demee bay nodd ñetti nodd ya nga bañ ko julli moo gën xam nga kan looloo tax lan moo waral imam Malik di wax yooyu noonu. Hmm. xam nga moom moom moom ñëwul di ñëwul di di oyofal diinal kenn diina kenn. maanaam. loolu boo ko gisee kan ñaari ràkk yooyu dafa am taxawaay bu muy taxaw si jumaa ji li muy war mooy kan nga teel a dem julli ji parce que dafa am ñoo xam ne bu ñëwee yoolu gërëm la ñuy am. am ñu am yoolu nag am ñu am yoolu xar am na ñoo xam ne sax moom balaa ñuy ñëw fekk malaaka ba dem na. mooy tëj na taxaw. tëj na dem léegi na nga ñëw fekk boobu imaam malaaka ba tëj na imaam di xutba nga ñëw naan da ngay def li kenn xamul bu sant. waaw waaw bu imaam sant. waaw loolu salaatul jumaa la da ngay da ngay nuyu ji rek jàll bismillah. loolu kay xam nga xam nga xam nga salaatul jumaa dafa am. waaye dawal ñaari ràkk am. salaamul jumaa dafa am. salaatul jumaa am dafa bokkul léegi nag yooyu noonu yëpp yëpp moom lañ la tere kat d'accord léegi nag xam nga am na beneen yoon boo xam ne moom ngay nuyoo jàkk sans que noonu muy la sans que noonu boo ñëwee yegg si rek aouzu billahi bismillah yéegloo ne am na sax ñoo xam ne dañ ne bañ ne ashhadu an laa ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan nga jàkka am ñoo xam ne ñu leen boo yegsee rek ba toog jàng fatiha nuyu nga jàkk ji yooyu yëpp nag tabaarakallaahu ci nuyu la léegi nag nga ñëw yow toog fekk ñu ne lii tabaarakallaahu dafa araam nga bokk ca ngir ba man kan nag ngi bokk ca ngir ba laay wax ak de waxumaa tabaarakallaahu ah man ki bokk ca ngir ba laay wax léegi nag aw safarin yub di yi bëgg fajar ba léegi fi may daanalee mooy tere nen ngiru imam malik koo xam ne day tukki bisu aljuma gannaaw ba fajar jàllee maanaam dañ koy tere. buñ jullee fajar dañ koo tere la wax. te dañu koo sib dañu koo sib léegi nag bu zawal xawee jot bu xas zawal xasee jot mooy ñuy waaj a noddu. noddu mi rek yooyu. kooku moom dañ koy tere ci boppam. dañu koy tere. mais bu dee fajar dafa jot nag dañuy sib nga dem naan tabaarakallaahu da ngay voyage. léegi nag sunna yeeg yooyu mu ngi noonu bu buñ ci ñëwee muy sunna yi. d'accord a dem ak. tabaarakallaahu sango jokkale ko tabaarakallaahu boo sangoo ba pare nga bañ a nalaw bañ a nekkaat di lekk leneen nga dem nga tabaarakallaahu ngant yi nag jàngale naa ko loolu moo ne ci jumaa d'accord yow Oustaz d'accord alors euh, nous voilà ci deuxième partie de l'émission comme je vous ai dit mais en attendant avant d'installer Adji je pense que ba tey jii ñu ngi ci woon ci li nga xamante ne moom mooy wàccaayu maggal Tuuba gi am na yeneen itamit yoo xamant ne ba tey jii ay xéewal ba tey leeral daf koy daal di def uh-huh. mais naa ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci régie ba ñu également est disponible avant ma dugal euh, aji wa mawlana muhammadin wa ala ali wa sahbi wa xadimi wa salama tasliman safaru bamsasin junnatun màggalub Touba 2023 Leral TV Leral FM ak Leral point net fas yéene ànd ci ak yéen gunge leen lu ko dalee benn fan ci werub safar ba bésub màggal groupe leeral Média dugg ak yéen ci xolu tuuba ak mbooleem fu ñuy màggale ak fàttaliku liggéey bi Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba xadimul Khadim def ci yoonu géej gi Leral FM Leral TV Leral point net fas yéene dikk ak yéen ci ay reportage ay plateaux spéciaux ak lépp lu màggal gi laaj premier safar ba màggalu tuuba groupe leeral ànd ak yéen ci santale Serigne Touba sunu borom leeral ak yéen ila Touba. salaamaaleykum euh, mbokki jullit mbokki taalibe weeru safar terootina ñu fas ànd ak yéen dundu mbégteem safar 18 safar. ñu fas yéene koo teeroo bisub sëñ bu màgg bi Cheikh Ahmadou Bamba moom mi nga xam ni moo waxoon ni wajjahtu kulliya liman hadaani wa raada lii fil bahri man aadaani kookoo nangul boromam boroomam kookoo boromam boroomam ko liggéeyal yonent bi ba yàlla suñ boroom tàggatal ko ay noonam ba ñu nangul ko ca géej ga leexal TV leexal média group leexal rajo leexal point net fas yéene ànd ak yéen ci yoonu màggal yoonu màggal gi nag dina am lu fay xewee dinañ ci ànd ak suñuy naataangoo suñu journaliste reporter lépp lu jëm ci xabaar méngoog li nga xam ne mooy xew-xew bu màgg bi dinañ ci ànd ak yen ak ay plateau yoo xam ni plateau surprise la waaye ay invité surprise ñi ngi woo ñi nga xam ni ñoom ñooy partenaires yi ngeen ñëw fas yéene ànd ak ñun ci li nga xam ni moom mooy xew-xew bu màgg bi di bésu Serigne Touba. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum bismillah toujours euh, ci màggal Touba bi nee naa la cette année euh, màggal Touba leeral moom ça sera au cœur de l'événement loolu lay tijjee ci aji aji salaamualeykum maaleykum salaam Thierno. mbaa yaa ngi am tawféex bu baax a baax. sant yàlla bu baax naka bi mbaa yaa ngi koy waajal bu baax. si ñoo ngi koy yëg bu baax. macha allah tu es bien habillé comme d'habitude. merci beaucoup Thierno maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ci vendredi bi yow tamit di nuyu oustaz moom tamit di ko ziar ci vendredi bi tey nag mu nekk première safar muy mbégte boo xamante ne dañ koy dund ba keroog màggal gi di ñëw ci noonu rek dañuy nuyu suñuy internautes ak aussi suñuy téléspectateurs yu leeral TV comme niñ koy defee rek à chaque fois. tous les jours seen rubrique boobu ñu dippee li nga xamante ni moo di biir internet ngeen di poser seen i ay questions oustaz di leen ko tontu directement Thierno. directement chaque fois comme di defee. a des mhm. questions yoo xamante ne les internautes nous le posent waaye tamit ca loola comme rappel aussi on est en direct sur Facebook Instagram et aussi sur YouTube vous pouvez nous appeler directement au 88 628 02 pense que y a chaque fois comme ni ñuy daal di def am na ay questions yoo xamante ne koy daal di. di euh, am lay bu fekkee ni si c'est bon donc directement on vient aux questions wala ca loola je pense que bien aussi manit j'ai une question pour vous mhm. bien sûr en tant que euh, jigéen ca loola d'accord allez-y inchallah mhm. euh, ñu dooree ko rek ak première question bi moom dafay laaj lan moo waral ñuy dem juma chaque vendredi lan moo waral ñuy dem juma mhm. lan moo waral dem juma naa ko sax ñëw na ñëw na sax def naa ndax jàngale naa ne tabaarakallaahu jumaa farata la boo xam ne yàlla moo moo ñu ko digal muy farata ci ñun ñun ñëpp képp koo xam ne tabaarakallaahu jullit nga dangaa war a dem julli ji. pourquoi la prière du vendredi. Mm-hmm. léegi nag tabaarakallaahu julli ji bi ci boppam farata la ci yow mii jullit farata yooyu xanaa bi nga ko xas bu ñu xasee tudd na lii farata la ci rek jaratul nekk naan nangam ak nangam léegi nag mu am gëneel yoo xam ne yàlla moo ko jégleel kuy julli ji waxoon naa ko sànq waxoon naa la nee na rasulullah gi wa sallam nee na képp koo xam ne sangu na dem julli ji kafarat anhu sunubuhu yàlla raafal ko ay bàkkaaram yépp xanaa ko nga yëg ne julli jumaa ngir raafal ñu ay bàkkaar la wa isa masa ilal jumaati kataballahu taala lahu bi kulli qudwatin ibadatun ashrina sanna nee na heure boo jëlee sa tànk teg ko yàlla jéego boobu dala ciy bindal tiyaaba jaamu ku jaamu ñaar fukki at xanaa kon jar na jumaa moo tax ñuy bañ kuy julli ju jumaa ngay daw noo teel rek nànk par nànk nga jéego ko ci dal parce que nee na bépp jéego boo siq rek ñu bindal la ko tiyaaba kon nag tabaarakallaahu loolu jar na nag tabaarakallaahu ku na dem waaye nag mu ne fa isaa salla jumaatu ajjar bi amale mi atti sanna nee na boo jullee jumaa ñu yoolal la ku jaamu yàlla ñaari téeméeri at ñu yoon la ko jox la ko ci yoon. Mhm. ngëneel yi nag tabaarakallaahu mooy tax ñu julli ji jumaa waaye nag ngëneel yi yëpp lu muy bëri bëri bëri. julli jumaa day farata ci ñun. farata la nag comme ni tusubaat nekkee farata. Mhm. farata la ni tàkkusaan nekkee farata. Mhm. farata la ni timis nekkee farata. farata la ni géye nekkee farata. jumaa te rasulullah nee na ku bàyyi ñett jumaa ku ko bàyyi. ñett jumaa rek nga toog bàyyi ko bàyyi xel nga nag tabaarakallaahu boole leen la ci naafiq yi bind la. ci liste bi ne diw mii naa naafiq la raaf boo bind boo xam ne duñu ko remplacer duñ dootuñ ko raaf loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax tabarakallahu léegi nag jumaa ngoog yàllaa ñu ko digal yaa ayyuha allazina amanu isaa nuudiya li salaati min yawmi jumaati fadaw ila dikrillah wadal bayan yàlla moo farataal loolu bu tabarakallahu jàkk ju noddee ñun ñëpp ñu bàyyi lu ñu def tabaarakallaahu dem julli ji insha allahu taala. d' accord macha allah defe naa ni que bi am na solo te dégg nañ ko ki la ko pose sax oustaz nekkul jullit chrétien la kon ñoo ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax. Kati Pereira depuis euh, Kër Massar loolu moo waral ñuy dem juma ñu ñëw rek ci deuxième question bi mu ne est ce que jigéen bu dul dem juma euh, tous les euh, vendredis moom ak góor ñoo yem àtte. waaw jigéen nag dafa àtte yu ne ci moom pour côté juma. kan bu dee jigéen boo xam ne màgget la dem na ba benn góor du ko soxla am lu muy yëg mën na dem julli ji mais kat bu dee jànq dañu ko sib muy julli ji maanaam jànq dañu koo sib muy dem naan day dem julli ji ca jàkka ji loolu ngir imam Malik ba léegi laay wax fa laa ne. <laughs> naa ne. jànq jànq dañu ko sib yow xam nga yow lu tax xam nga ko. lu tax moom yaa ko gën a xam kan nag maa bëgg a dugal ci yeneen rek kan. kan. jànq ci boppam sib nañu muy dem naan day julli jë ca jumaa ja li muy yàq ëpp lu mu defar. ndax li muy xam nga li muy yàq moom li muy li di di di romb ñoom. xam nga mais kan mais xam nga kan nga dem bay julli. ah jànq bu kii bu kii ñëw romb kii sa kanam kan yooyu day day kéemtaane moo tax nag moom li muy yàq moo ëpp lu muy defar bu dee dem nga nag ba yow kenn soxlawu la mm-hmm. màgget nga. wóor na leen ne fi ne nii moom amul góor bu lay xool commencé ah, waaw kii nangam kooku nag mën naa dem julli ji waaye bu dee jàq nag tabaarakallaahu mu ngi noonu kooku dañ koy sib sax mu julli ji na bu bu toogee it bàkkaar du ko ci fekk na dem julli ji tisbaar maanaam demam demam demam demam jumaa du obligatoire demam jumaa du obligatoire beneen bi ci gën a teg du obligatoire te dañuy sib mu dañ mu dem waaye léegi moom bu fekkee bëgg na dem na toog bu bëggee demit l'islam loolu la ko wax li muy yàq moo lu muy defar kan jigéen dafa garaaw waa léegi bu fekkee moom euh, fas yéene na bëgg dem juma dem teel. bu fas yéene bëgg a dem ak bëgg a nangam na toog kan. bu bëggee yaa oustaz. na toog mais sariya amul bu bëggee mais kan xanaa xamoo xanaa kon bu dee bu bëggee rek bu bëggee rek kan. mais gars yi am na luñ bëgg lu bëri tabax tabax te te ñu tere leen ko. mu nekk lu sip nekk lu xalaat man mi maa ngi nii li ma bëgg bari na. <laughs> te loolu la na kan mu toog kooku day toog. mais kan dafa am jigéen góor ñoo xam ne dañoo feebar kan. waaw loolu am na. yàlla bind góor xam góor li muy yëg yàlla bind jigéen xam jigéen lu muy yëg mu ah jigéen nag tabaarakallaahu. waaye nag nit xam nga alquran daf na zuyyina li naas hubbu shahwaati mina nisaa mhm. yàlla nee na maa def góor ñi ñu bëgg jigéen ñi. Mhm. def jigéen ñi ñu bëgg góor ñi. Mhm. waaw góor bu bëggul jigéen kat lu muy bëgg. góor. <laughs> kan góor. bu bëggul jigéen day bëgg góor. <laughs> jigéen bu bëggul jigéen bu bëggul góor day bëgg jigéen looloo nekk ci réew mi wala xawla wala moo tax kan góor dafa war a bëgg jigéen ku ko lew nag laay wax góor daa war a bëgg jigéen bañ a bëgg moromu góoram luy kii ko lew luy lool jigéen bëgg jigéen non bëgg jigéen kay bëgg la donc amul dara lu parce que yàlla nee na maa def góor ñi ci boppam ñiy bëgg jigéen kan waaw ah, yàlla ko def nag waaw loolu yàllaa ko def moom ko def moom yàlla nee na maa def jigéen ñi ñuy bëgg góor mm-hmm. zuyyina li naas bu shawaati mina nisaa moo tax koo fi gis nag eh, xale bu jigéen boo fi gis mu naan eh, eh, kii yu maag nabu kenn sama rab bi deex lu ko neex rek. am na ku mu nopp force. force force loolu yàllaa ko wax. zuyyina li naas moo tax nag góor goo gis nag bëgg na jigéen amul ku bëggul jigéen kan. am na ñoo xam nag yow saas ñëpp bëgg jigéen am nañu feebar de góor yombatul de yow saas mais daa am ñoo xam ne ñoom dañoo feebar. wàllu feebar la yow saas bëgg jigéen dafa feebar. subhanallah léegi nag ñooñu feebar nag moo tax ñu ne ko toogal ñu ne ndaw ndaw si toog na toog jàkk ja bëgguñu jógee na toog na parce que nag bu toog parce que am na ñoo xam ne kan uh-huh. heure fu ñu toog xale bu jigéen bu romb dinañu ko xool faaw ñu sànni ci kàddu waaw ah na xale bu jigéen Antoine mi ci kër gi maa koy wax moo lotissé fii resu faar gi maa man mii maa ko def kan am na góor ñoo xam ne kan bu ñu bëggee ndaw si mënuñoo wax ak moom sax ñu naan kaa yaa ñaaw ah, loolu am na. naan ko xale bu jigéen bi yaa ñaaw. cokkaas te dañoo bëgg a wax ak moom mënuñu wax ak moom. kan cokkaas cokkaas. mais xam nga xam nga jigéen nag moom daa galaa moo ne ko moom moo ne ko baa yaa ñaaw rek rey nga ko. waaw loolu nag daa neexut di wala wala jigéen togg lu mu togg def ba pare nga ne ko ah neexut. am na xam nga nag baal ma mais dafa am ñoo xam ne ñu ci bëri dañoo gaaw ji seen bopp. wallaahi kan mu ngi noonu loolay question bi. ndeysaan allez Adja Astou si vous avez une question. ñu ñëw ci euh, dernière question bi rek oustaz lan moo waral ñuy def xutba juma. waa xutba jumaa nag dafa am yeneen ñaari rakk yi mu taxawoon ci tusubaar bi moo tax nag wal xutba taali fiihuma yëqum ñaari xutba yi day farata ci imaam bi di farata nag ci jumaa ji comprendre nga xutba farata la day force force force ci jumaa ji mënul bañ a am tabaarakallaahu ci jumaa ji léegi nag xutba yooyu dafa ñëw taxawee ñaari rakk yi nga xam ne moo waroon mën a am bu dul tusubaar ñaata rakk ngay julli ñeent ñeent ñaari ràkk yooyu ci boppam moom lay xutba yi ñëw taxawee. mooy xutba premier mooy xutba moo tax nag boo koy xutba doo ñëw da ngay taxaw da ngay toog ak di def ne déedéet da ngay ñëw toog da ñëw taxaw carrément xutba wal xutbataan ñaari xutba yëpp fiihim farata la ci julli gi fiihim war na ci ñaari xutba yi yëqum kuy xutba mu taxaw parce que farata la yu remplacé ñaari julli gi. moo tax xutba nag tabaarakallah loolu moom mooy taxawaay. bu léegi léegi léegi orientation la. imaam bi ñu xool keneen ku mën xam nga imaam laa ajis dafa am bu ñu duggee ci sart imaam imaam dafa ay sartam bis buñ ci duggee ne tabaarakallaahu naa la wax lan mooy sart imaam imaamun ajis bu amee imaam boo xam ne dafa lott maanaam amul kàttan yow koo xam nga dem na ba mënul taxaw nag kan kooku nu muy jiitee kan Sénégal fii dañoo bëgg jiite ah kan ku mënul taxaw wax dëgg yàlla doo toog du nga dem arrière keneen keneen ñëw jiite Oustaz réew mi dañu mënoo taxaw ne da ngay jiite imaamul ajis yi ki mën a jiite mooy ku lottu ni moom mais warul jiit ba ci imam bu silmaxa yooyu noonu yëpp bu mu ñëw ci sart imam insha allahu taala naa ci ñëw bu soobee yàlla insha allah waaw am na mais attends am na euh, comme par ay imam yoo xamante ne ay silmaxa lañ te macha allah li ñuy la wax la mooy maanaam loo xam ne dañu ko sit li ñu gën a bëgg kan ci moom mooy mu jiite ay moromam imaamul aajis mooy koo xam ne dafa lottu kan pour mu joxe ko cëram carrément du ko mën xam nga waaw mais bët bët bët lu ci yoonu làmmiñ ak leneen du wax dégg dangu la. xam nga lan la dañ cee bëgg ki nga xam ne cëram a gën a mat ci côté bu ne. ko kay exemple. mais kan exemple waa kan nit nit silmaxa di ja te gis nañ ko gis nañ ko màkk gis nañ ko leneen léegi loolu la mooy sit bi. kan man da ci ngir imam Malik nee naa la ba tey jii ci ngir imam Malik. am na ay am na ay imam yoo xamante ne fii ci dëkk bi fii ci Sénégal. ci imam Malik la sukkandiku. kan te ñoom seen i imam ay ay ay kan boo demee ci ngir imam Malik téere bu ñu naan misbaahul dalik dafay jàngale sart yi nga xam ne mooy sart imam. mu ne imaamul arma fa huwal makru bu gumba dañu koo sit muy jiite ñi nga xam ne seen bët ñu ne ko nag kan la war a jiite ñu ne ku mel ni moom. indi na tax indi na lu tax lu waral lool. loolu daal moom mooy li nga xam ne moom mooy sart bi mu ci indi ma kan dina gën a leer bu ñu demee bu ma ñëwee ba indi sabti imaam yi bu soobee yàlla taala incha allah taala dina gis ñëw beneen bi mooy est-ce que nit imaam mën naa xutba faatiya donc imaam mën naa xutba faatiya donc imaam bu ko neexee bismillah alhamdulilah rabbil arrahman bu ko neexee bu ko neexee mën na ñëw xutba faatiha donc parce que xam nga xutba lan la kat mhm. pour ñëw orientation faatiha du orientation kan orientation waaye nag ki ngay orienté bu déggul li nga koy orientation man li ma waxoon dé de de kan kan li ma waxoon ci gannaaw rek bayaan ba daal ñëwal leeral Fatima man man man ay bayaan yi parce que bayaan ba sax bayaan léegi léegi la gën a fréquent mais avant amul surtout ci ay village yoo xamante ne comme par exemple man sama village amul bayaan dañuy xaar imam ñëw ñëppay nekk di wir di ñii di ñii di def li ñuy def ngay wax nii kat imam bu ñëwee directement day mais tey par exemple ñooñu ay xalpuraar lañ ay séeréer lañ ay joolaa lañ nga leen di wax yaa xayti naan leen inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu lan lañ lay wax kan xam nga luy farata xam luy farata li la yàlla digal nga dem jàngi ji ko xam oustaz dafa bokk nag ci aljuma ngir nit ñi ñu dellu ci yàlla ma kan xam nga luy farata mooy premier rek premier li la yàlla digal nga dem xami ko day farata ci yow muy la fatiha boobu noonu da nga ko war a dem xami yow yaa xola da nga xola fatiha boobu mën nga ko xam da ko war a dem xami mën nga ko bañ léegi nag kan léegi beneen bi ci des mooy kan bayaan boobu noonu lu tax ñu indi ko mooy orientation thème bi tey lii la tey thème bi daal lu ñu indi mooy wàllu fen dañuy waxtaanee fen fen nag la ñuy waxtaanee bayaan ko wax li lii la yonentu wax ci fen fen dafa xaraam fen daganul bu leen fen ba leen fen ak yi ci mel léegi imaam bu ñëwee toog rek mën na wax alhamdulilah. waaw mais. alhamdulilah nee naa la bayaan gi am na ñu am na ñoo xam ne duñ ko def. waaw waaw kooku la parce que bayaan bi léegi ay oustaz bi nekk ci koñ bi la imam moom moo koy remplacer ñëw taxaw di nañ kon nañ ko ban organiser ñu organiser conférence jour boobu noonu war a fàttali jaami insha allah ñu dellu ci àlla kan ngiru imam Malik laa man kay ba tey ci man ngay ci ngiru imam Malik génn nga bu su ma la waxoon ngiru imam Malik kan nga di ci taxaw ne ci ngiru imam Malik doo ma ci tegal benn baat. waaw d'accord arab yi ñu doon làq imam Malik ci ay ci xeetam la doon waxal. ci xeetam la bokk loolu kenn wéru. mais ñooñu arab lañ doon làq. d'accord d'accord mais waaw wolof gii man ma nàmp. waaw pourquoi boo bëggee dellu ci xam nga arab wute kat. xam nga dañoo ne Allah subhanahu wa ta'ala waaw xam na xam na arab yi dañoo lan moo tax rasul ba muy joxe leetar naan ko leetar bi nangam ak nangam boo demee bu ko jàngee nii jàngee ko ni loolu eh dafa mel ni pël ak ak ak pullu ak halpulareeɓe walla ɓe ko parce ka kaami wax la kadi am na arab yoo xam ne am na arab yoo xam ne dégguñu beneen arab bii ci alquran bi dégguñu beneen arab bii rasulullah di wax ci làmmañam waaye nag loolu day am ndax ndax waaw léegi léegi léegi arab yaa xëy nag dañ koo wàcce ci langue arab dañ koo wàcce ci langue arab dañ koo wàcce ci langue arab mais universel googa ñépp bokk ko moo taxit ñu koy jàngee noonu kan ci lan nga tënk yow li ma mooy yonent ya sallallahu alayhi wa ci ay mala wàccul ci ay dara. ci ay nit la wàcc. waaw ah Moussa ci ay xeetam la wàcc maanaam yàlla day xool ñii nu ñu nduroon mu wàcceel leen foofa ngir ñu orienté leen noo la. waaw bu fekkoon ñun neneen la ñuy waxee bu fekkoon par exemple arabe yi par exemple entre parenthèses ay anglais lañ. waaw yonent ya sallallahu alayhi anglais lay wax pour mu dégg ak ñoom. loolu mooy objectif léegi yow nga bëgg maa delloog yàlla nga may wax anglais wala arab ok merci man nag léegi dama doon bàyyi ba nga daaneel. daaneel ma ne Imam Malik loolu la wax mooy point moom mooy suñu téere ñun. <laughs> alors je pense que Adji euh, yow en tant que lii yëpp lan mooy sa xalaat ak sa dernier mot vite fait. bon man daal euh, sama xalaat lenn kese la mooy que nii euh, ci cadre li mu doon wax pour jigéen ñi dem juma loolu lënt lënt la woon sax sama biir euh, bokk bi donc andi na ci aussi ay leeral ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te aussi ñu bàyyi xel sobe yi parce que jigéen dafa bari sobe comme oustaz moom li muy wax tout am na ku may message léegi nii sax kumba nee na moom dafa yëpp jigéen ñi donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax en tout ndax ndax ndax yiw yu gën a bari yaa ngi koy tudd ci ci ci ci lii nii dañ koy yónni xaw mais heure bu ñëwee wax ma loolu. dëgg la dama yaakaar dañ lay yónni. dañ maa yónni kay. waa waa waa waa kii leen rek xam nga jigéen ñi moom buñ baaxee lépp baaxkat. Mm-hmm. billaahi jigéen ñi bu ñu baaxee tout bien tout bien. waaye nag bu ñu loolee. tout day loolu parce que lépp lu baax ci ñoo ne. jur jigéen jigéen ñi ñoo mën a jur ñu baax ñi. Mm-hmm. jigéen ñi ñoo mën a dugg ci kër fekk kër gi ñëpp dëngoo ñu defar ñëpp. jigéen ñi ñoo mën a dugg ci kër gi fekk kër gi ñi bokk ndeeg baay bu ñu wax. mu dugg ci kër gi ba fexe ñi bokk ndeeg baay di wax waaye moo mën a ñëw ci kër gi fekk ñi bokk ndeeg baay bokk benn kaasu ataaya di ko naan. mu fexe ba tàggali leen ba dootuñ gisanteeti. loolu jigéen a ko mën. yooyu jigéen a koy def. am mais jigéen mooy def yooyu noonu kat yu ci bëri jigéen a koy def nag moo waral léegi ci jigéen ñi rek pour ñoom ñu ah, aji vite fait ñun ñu tàggatoo. amoon mbégte ak contentement di partager nag ci yéen émission bi comme ni ñu koy defee rek à chaque fois mais aussi di souhaiter. xam nga Mamadou sama rakk la moom nag caatu maawri la ñu koy ñaanal gudd fan ak wér mu màgg bay teral way juram mu nekk magum diine wante itam mag bu am l'islam ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di nuyu aussi Kumba depuis Yoff moom aussi moom ñu doon suivre Thierno. merci beaucoup en tout cas en ah, di souhaité waale encore sa rakk jooja happy birthday je pense que il le mérite sa rakk suñu rakk la mhm. ah l'ami de ton ami et mon dundal dundal mon na dund. alors happy buzzel. Ah, happy buzz wala <laughs> happy la neex la. moom ñu nit ñu souhaité ñu souhaité sunu xarit Mortale Seck ne fekk ci tubaab Oustaz waa ji ñu ngi lay bëgg yow it tabaarakallaahu wax la dundal borom la 18 dundal xàppil yow da ngaa baax tabaarakallaahu macha allah sa xol rafet ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk sutura tabaarakallaahu kon nag tooñu ñu benn jigéen waaye jigéen ñi kat ñoo war di muuru. loolu am na loolu nag ay loolu nag loolu nag ay xeer la alors mesdames et messieurs ñu ngi nii ci càppaandaw émission ga li ñu cërale wuñ ci waxtu daanaka jeex na te tey la aljumaa aljumaa mubarak à tout un chacun de vous yéen ñi ñuy seetaan toog seeni kër ñi nekk ci clinique yi yi nekk ci et cetera ñun ñu ngi leen di daal di nuyu gis nañ message merci beaucoup pour l'encouragement en tout cas ngeen xam ne ni ni mel moom la ñuy waajalee safar gi le tey ji première safar ba 18 safar jiili xasida lundi incha allahu taala mu ñëw fii bàkkal ñu xasida yi waaye bàkkal ñu ahmadul xadim bàkkal ñu na muhammad incha allahu ñu ngi koy wax ñëpp tabarakallahu ñëpp bàyyi ko xel lundi lay doon bu 11h jotee fii ci Leral TV nga jàpp sa télé déglu Serigne Djily Khassida incha allahu taala. kon Aïcha je que c' est comme ça donc nous vous donnons rendez-vous demain incha allah même heure non pas demain lundi je pense. lundi ak invité Goga d'ici là prenez def ci màggal gi xam nga mu am na xéewal ndax yor na lu ma la jar ñaar